naa sama yaay fii nag ci kaw. jawo jam jawo tiiɗi ɗum haɗani o wonde jawo balum gorko woddanton sarkilla 2024 président ah loo xamante ne antu na rek ci ñoom la seen loxo la jaar donc ma leen di gërëm vraiment ci euh, seen i kàddu ci seen taxawaay ak ci seen i pas ndax loolu la ñu soxla tey ci àdduna bi di wax ni ñun lenn rek moom moo guidé suñu action ndax mosuñu def politique waaye lu tax ñu décidé def politique c'est parce que. comme yàlla def ñu jagleel ñuy liggéey ci tabaxum réew ñu gis ni Sénégal mi ngi ci ay situation yoo xamante ne amatuñu sañ-sañu toog naan loolu suñu yoon nekku ci ndax ñun li ñuy def ñu koy def lu ñuy am ñu koy am wala li nga xamante ne moom mooy suñu liggéey moom doy nañu donc ñun duñu ñëw di engagé wu Sénégal bi ñu defee nag constat boobu ba taxaw ba xool ñu ne àkat ñun kat il faut ñu jóg soobu ci biir politique bi ndax ku deful politique ku ñëw warul def politique def ko à sa à ta place kooku waroo ko euh, ngaññi wala waroo ko mere bu nekkee dafa def loo xamante ne euh, ànduloo si loolu moo tax ñu jóg jël suñu responsabilité ne lépp loo xamante ne Sénégal soxla na ko ci wàllu xalaat ci wàllu taxawaay dinañ ci def suñu loxo parce que nu la devons à ce loolu moo waral ñu jóg ak ñeneen nit yi nga xamante ne dañu ànd ak ñun ci ngëm-ngëm ànd ak ñun ci principe ànd ak ñun ak ay valeur xam ni réew mi bu nekkee juguñu pour defar ko ah euh, première conséquence yi nga xamante ne moo ci nar a judd ñun ñoo koy vivre ñun ñi ñoo koy vivre ba pare suñu doom yi di ko vivre ndax tey ñépp xam nañ ni ci àdduna bi ne nit ki mën na dem ba jàng fii Sénégal doomam yi am ay lijaasa te mënuloo waat ne kooku lijaasa bi bu ko amee dina mën a liggéey loolu il faut mu arrêter li tax ñu mën ko arrêter parce que

loolu moom mooy ñun suñu taxawaay taxawaayu jàmm la taxawaayu jàmm indi ay saafara la may préciser euh, euh, ci euh, jiiri saabalkat yi fi nekk ne ñun opposition la ñu nekk nous sommes un parti politique que nous venons de constituer qui se positionne dans l'opposition te posi positionnement boobu dafa di doon lu leer te li tax ñu positionné dans l'opposition parce que dañu bëgg am suñu liberté d'expression suñu liberté d'action dañ ko bëgg am ndax li doon euh, yomb pour ñun moom mooy ñëw rek ñu bootu ci ginnaaw kenn ne nañu dem mais dañoo jël choix bi gën a jafe moom mooy nga demal sa bopp parce que dañu gëm ni principe ak valeur yi war a tax réew yi mën a dem de l'avant loolu ñun ñoo ko war a mën a incarner ñun suñu bopp tey bu yàlla defee incha allah ñu mën a dem ba incarner le projet politique nu nous souhaitons proposer aux Sénégalais en 2024 su boobaa nit xam ni liggéeykat yi ñëw nañu liggéeykat yi ñëw nañu te ce pays li mu soxla maa ngi leen di euh, rassurer que li Sénégal soxla pour assurer son développement de façon définitive mu ngi ci biir réew mi la question se pose en termes de choix et de priorité et ñun nag choix yi priorité yooyu xam nañ fan lañ koy jaaree pour mën a indi solution yi nga xam ne moom la Sénégal soxla ndax loolu mooy suñu liggéey plus de 15 ans mi ngi nii ñu ciy ñu ciy dox et ñu ngi koy defal yeneen réew yoo xamante ne mënatuñu toog naan di ko defar suñu réew li nga xamante ne nag moom mooy suñu taxawaay wax naa leen ko moom mooy indi des solution indi euh, euh, li nga xamante ne moom la askan bi soxla moom la réew bi soxla pour qu'on puisse asseoir son développement ci tànk yooyu li ñuy fekk te kenn duñu fekk ci beneen tànk dinañ ko def man ak ñi ma àndal ñëpp ci teggin dañ ko def ci yar parce que loolu lañuy ñuy soxla ci biir réew mi jàmm nit yi di mën a waxante di mën a jëfalante ci jàmm ak yar ñun nag loolu la ñuy woote kenn du ñu fekk ñuy wootee nit ci xuloo wala ci saaga wala ci xaste fu ñu mënti woo ci suñu liggéey li ñuy jël comme condition la seule condition bi nga xamante ne dañ ko nañ ko nangu ci nit moom mooy principe ak valeur dès l'instant que am na ko rek ubbil nañ ko suñu loxo ne ko bismillah ñëwal ñu liggéey ma leen di wax tamit ne doxaleen bi nga xam ne mooy suñu doxaleen amul président mooy décider ñeneen ñi topp président beeg jaaykatu gerte bi ñoo am la même dignité amul benn benn benn xalaat boo xamante ne dinañ ko gis ci biir askan bi jàpp ne non loolu euh, xalaatu ku tuuti la donc duñ ko jëfandikoo. képp koo xamante ne am nga xalaat ci réew mi wala am nga loo xamante ne mën nga ko euh, jagleel tàllal na la suñu loxo ndax li ñu tax a jóg du lenn du dul askan bi du lenn lu dul Sénégal moo tax bu ñu ñëwee tey ba mën a yeggee loolu askan bi ah dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm sama waajur bu jigéen bi fi nekk. Euh, di ko di sàkku ci moom ñaan ndax liggéey bi nga xamante ne moom la ñu sumb nii xam nañu du liggéey bu yomb euh, di ñaan kilifa diine yi ñu euh, jàppale ñu ci ñaan di ñaan sénégalais yi ñu jàppale ñu ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu dugg parce que ñoom rek ñoo tax ñu dugg ci liggéey bi ndax bu nekkoon suñu bopp la kon xam naa ne duñu fi sax taxaw di wax waaye dañu jàpp ne nit ki bis boo demee ba taseeg sa borom ah, man bugguma di layoog suñu borom ne ko ah bi réew mi di yàqu wala bi ma gisee am na yenn situation yoo xamante ne taxawul lan laa def xaw ma lu ma def bëgg naa taxaw ne suñu borom lii moo nekkoon sama taxawaay te jéem nañu te gëm naa ni loolu ñuy jëm ak dëgg di ko jéem ak pas-pas yàlla dañ ci defal sutura te bu ñu defalee sutura ci loolu lépp loo xamante ne moom la askan bi soxla dina ci gis boppam parce que loolu mu ñu tax a jóg boo ko defee ma leen di gërëm bu baax a baax baax di leen di woo Euh, vraiment ci liggéey bi euh, di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla jàppale yàlla sàmmuñu sàmm réew mi ndax ñun amuñu lenn lu dul réew mi donte nekkuñu fi nee nañu bëccëg ngi ci kaw waaye xel baa ngi ci suuf ñu loolu moo ñu dal Sénégal lépp lu ñu am ci àdduna Sénégal moo ñu ko gënal moo tax heure engagement bu jotee kon dañuy jóg sóobu ci engagement bi heure engagement bu jotee dañuy sóobu ci engagement bi donte amoon nañu ay appréhension ci politique bi mais dañ ciy sóobu que loolu mooy yoon ma leen di gërëm bu baax a baax bëgg naa lim képp ku fi nekk ndax képp toog ci salle bi tey mérité nga ma jaar ci sa tur képp ku fi toog mën naa jaar seen tur ndax mérité ngeen ko ma leen di wax ni jël naa à témoin suñu borom ne leen engagement bi ñu jël nii tey bis bu ñu naree dem bay xalaat di ko def pour ay intérêt personnel kon maire sax bëgguñu ko chef de quartier sax soxlawuñu ko lu ñu bëgg mooy lépp lu ñuy mën a def toutes les actions que nous dans le cadre de nos réflexions dans le cadre de l'action publique lenn du ko tax a jóg lu dul askanu Sénégal nous en prenons l'engagement et nous en faisons la promesse ñu ngi leen di gërëm euh, bu baax ci seen teewaay euh, di leen di euh, remercier vraiment du fond du cœur di wax alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf merci beaucoup qui promeuvent des valeurs économiques par le sens du métier par le sens du métier de la sanctification du travail bien fait de production de biens sans marchandisation aliénante, d'exigence de redistribution des biens et services de l'ensemble et au bénéfice du corps social. Les valeurs écologiques ne sont pas un reste. Nous voulons fonder notre projet de société sur des valeurs écologiques par un sens sacré de la terre, car la terre appartient à l'être humain et non l'inverse. Les valeurs culturelles ne seront pas un reste. Elles constitueront un pilier essentiel de notre projet de société par un ancrage au patrimoine africain, spirituel et des acquis du progrès technique et universel. Enfin, ce référentiel des valeurs que nous avons conçu a été pensé pour guider la conduite de l'action publique selon des principes directeurs au nombre desquels on peut citer, entre autres, le sens et la fonction de notre projet sociétal, qui est d'essence humaniste, l'humanisme. Voilà la nouvelle doctrine que nous voulons consacrer pour la conduite de notre projet sociétal. L'être humain, ainsi que le milieu qui l'entoure, constitue la raison principale et principielle de tout processus de développement. Le développement de l'être humain obéit au principe de l'ordre divin qui commande l'ordre cosmique ainsi que l'ordre social y afférent. Ceci en vertu du principe d'équilibre, d'harmonie et de complémentarité. le respect et la préservation du milieu naturel, biologique et minéral qui sert de substrat existentiel. La préservation des supports physiques, biologiques et minéraux abritant à la fois l'histoire, l'héritage et l'esprit de nos ancêtres. Ceci en vertu du principe d'exigence de continuité de la vie humaine. La subordination du pouvoir politique à l'exigence permanente de l'ordre social, proscription définitive et exclusion du pouvoir de groupes humains sur d'autres La responsabilité sociale par raison d'aptitude et de mérite en vertu de la règle d'application de l'effort continu, de reconnaissance et de promotion de l'effort individuel. Ce qui implique le sens élevé de la dignité humaine, de justice sociale et d'équité territoriale. Le respect total de l'intégrité de la personne humaine et de sa communauté dans ses composantes, son esprit, son corps, son nom, sa réputation, ses biens matériels et immatériels. L'impérieuse exigence de l'État et la communauté de garantir aux citoyens le maximum de possibilités de développement physique, mental et moral en vue du, de son plein épanouissement, de, de, la, de sa personnalité de citoyen. Ceci en vertu du principe d'auto-évaluation, évolution assistée. L'application du principe de justesse, d'équilibre, d'équité, et de justice entre les communautés, tout comme celle-ci entre les espèces vivantes de la nature. Ceci implique l'approche terroir comme espace d'équilibre, de stabilité, de paix entre les êtres humains et la nature. La reconstruction d'un projet sociétal fondé sur la conception originelle de l'unité du genre humain. Ce qui implique le refus conscient et permanent de toute forme de racisme, de sectarisme, de communautarisme, d'ostracisme et d'intégrisme. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, si mon adresse vous a permis d'avoir un aperçu de notre projet de société, des principes et valeurs qui en guident le fondement, je voudrais vous annoncer qu'au titre de nos objectifs stratégiques, Jital Waref, le devoir en mouvement, compte conquérir et exercer le pouvoir d'État dans le cadre de la Constitution, des lois des conventions internationales en vigueur au Sénégal, ainsi que dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, des règles de bonne gouvernance associative. Voilà notre premier objectif stratégique. Nous comptons proposer au Sénégal et aux Sénégalais un nouveau projet sociétal fondé sur des lois, des codes éthiques explicites sur les évolutions scientifiques, l'idéologie du progrès de l'esprit humain en réaction et en opposition à tout obscurantisme irrationnel de contre-valeurs amorales et Nous voulons œuvrer au raffermissement d'un État-nation intégré, socle d'une société de paix, d'égalité, de fraternité et de liberté, d'abondance et de justice sociale au service du peuple sénégalais et à son service exclusivement. De justice sociale au service du peuple sénégalais. Je le répète une deuxième fois. Nous entendons consolider la démocratie avec une détermination ferme et irrémédiable. Et la même détermination animera nos actions et leur énergie pour la consolidation de la démocratie, l'état de droit, le développement, la sécurité, l'effectivité des droits humains, le respect des principes de gouvernance, la paix et la stabilité de la communauté nationale. C'est à ce prix que Jitel Waref, le devoir en mouvement, engagera ses réflexions dans la conception de l'action publique. Nous veillerons à l'exigence de l'État et la communauté de garantir aux citoyens sénégalais le maximum de possibilités de développement physique, mental et moral en vue de son épanouissement. Nous travaillerons sans relâche à soumettre l'État et ses démembrements à l'exigence permanente de placer le citoyen et l'ensemble des citoyens au centre des politiques publiques qui seront menées dans l'intérêt euh, général au rang et ceci sera érigé en termes de principe de gouvernance. Le projet sociétal a été pensé et conçu de manière à revisiter l'espace territorial sénégalais en tant que base de l'équité, la distribution des ressources, des activités, des modes d'occupation du sol, des mégastructures d'équipements, etc. Cette approche sera privilégiée dans le but d'éviter toute logique d'accaparement, de pillage, de prédation et de subjugation économique du capitalisme multipolaire. Nous ferons appel à des processus participatifs de prise de décision et soumettons toute grande décision relative aux grandes options de droit d'usage du sol à des consultations populaires en vue de parvenir à des consensus populaires. La promotion du panafricanisme sera un élément de priorité qui sera érigé au rang de priorité et constituera une stratégie de consolidation de la souveraineté des États africains et du Sénégal en particulier. Cette stratégie mettra en avant la valorisation par l'État et les communiqués et les communautés des langues africaines telles que parlées au Sénégal, à l'échelle nationale mais également internationale. Selon des principes d'égalité, d'équité, d'harmonie et de complémentarité. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, nous voulons fonder un projet sociétal qui renforcera et pérennisera le rayonnement international du Sénégal en s'appuyant sur la richesse de son patrimoine culturel, notamment dans son expression et sa dissémination à travers le monde. Nous voulons fonder la qualité de notre coopération avec les pays tiers selon le principe de respect réciproque des règles de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Nous voulons enfin bâtir un projet sociétal où l'État se constitue en autorité fédératrice, suprême comme instrument du peuple sénégalais, démuni de toute démagogie, de populisme électoral, qui garantisse la gratuité de l'accès aux services sociaux de base tels que la santé. Notre conscience nous interpelle et nous parle quand une personne perd la vie, faute de n'avoir pu payer un ticket d'entrée nécessaire à son admission à l'hôpital. Notre conscience nous interpelle, mesdames et messieurs. Elle nous parle quand le viatique et le confort moral, psychologique auquel un patient a droit d'attendre laisse la place à l'angoisse du paiement d'une ordonnance ou des radios prescrites dont les coûts exorbitants finissent par avoir raison de la vie du patient. Notre conscience, notre conscience, mesdames et messieurs, nous interpelle et elle nous parle quand l'empathie du personnel de soins cède à cette indifférence qui ronge le patient et finit par avoir raison de sa vie. Nous ne pouvons plus tolérer de telles inéquités. Nous ne devons plus accepter de vivre dans une société dépourvue d'humanisme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, Jitel Waref, le devoir en mouvement, est une promesse. C'est une promesse qui porte un idéal de société. Un idéal de société où la lancinante question de l'emploi des jeunes ne serait plus une hantise euh, des politiques publiques. Où l'emploi ne sera plus la préoccupation première de la jeunesse ou des femmes où l'emploi sera garanti parce que les options et les choix ne porteront plus sur des considérations politiques, mais sur une vision prospective et réflexive adossée à une véritable stratégie assortie d'un plan d'action rigoureusement suivi. Nous avons l'ambition d'offrir à notre pays une alternative politique nouvelle qui s'inscrive dans une démarche dépourvue de, de la culture du lucre, tant nuisible au culte de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes. Jitel Waref, le devoir en mouvement, a pour ambition d'offrir à notre pays une pensée stratégique, ainsi qu'une formation politique dont la doctrine sera guidée par des principes et valeurs d'humanisme. Dans un contexte marqué par les maux et les faiblesses en tout genre de notre société, ces principes d'humanisme sont les seuls garants d'une société équilibrée où les contours tenant et termes du contrat social seraient réalité pour social dans sa Je voudrais, avec ces propos, euh, mesdames et messieurs, adresser mes remerciements à l'ensemble euh, des personnes qui sont présentes dans cette salle, remercier euh, la presse, remercier la 2STV par le concours de qui nous avons euh, l'opportunité et la possibilité de passer euh, cet événement en direct. Euh, vous dire que nous avons fait le choix de l'engagement politique parce que nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas donner de nous-mêmes à ce pays. L'ensemble des personnes qui ont décidé de faire ce déplacement et d'être à nos côtés aujourd'hui, je pense à la famille élargie.